niñ koy defee saa su santaat yàlla bu baax moom mi ñu kàttanal ba ñu ñëw teew julli sëlmal ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari wayjur bu wér a wér te ñaanal leen jéggal suñu borom gërëm suñu wasila gërëm leen yéen ñi nga xamante ni saa su ne a ngi fasal seen cofeel jëmale ko ci ñun doore ko nag eh, ci maladie tëddi ci hôpitaux yeeg ñi seen i jàngoro ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw yàlla génne leen waaye way dawlu yi itam ñu ñaanal leen yàlla atte leen ci yërmandeem jéggal leen seen i bàkkaar kilifa diine fu ci waay mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu la ñaanal yàlla yàggal la fi la ngay ñaan mu jëm ci réew meeg askanu Sénégal yàlla na ko yàlla sottal askan woowu itam ma des fi nuyu kilifa aada yi nga xamante ni ñoom la ñu yàlla booleel te ñu jël réew mi dénkandi leen ko ñu ngi ñaan ci kàttanu yàlla la ñu leen dénk yàlla nañ ca mën dara ba ëllëg bu ñu fi bàyyi ko ñu bàyyi fi nettali bu rafet ndax ni ma koy waxee saa su ne rek nit ki fu mu toll sa jikko sa ginnaaw la ñu koy wax ku ko mën a dégg ne ay la yeween caamaas du mën naa ne waaw kay mën naa ne googu dama koy daal di jàllale ba ci mbokk yi nga xamante ni ñu ngi ci biir réew mi yëpp di ñu seetaan ak bitim réew moo xam réewu Afrique la ñu nekk wala réew nit ku weex maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen kontaane waaye tam di leen ñaanal jàmm ci réew yi ñu nekk yàlla sotti sutura ak xéewal ca euh, fa ñu nekk sàmm leen itam ba ñu dellu siwaat ci réew mi nga xamante ni fa la ñu bàyyi ko ndax souvent dama koy wax xaru euh, xolub tukkikat boo xar bu nekk rek lan nga fay fekk muy bëgg a ñibbisi kon yàlla leen ko sunu borom defar te bu ñuy ñëw itam seeni poche yàlla na ca dara nekk ndax moo leen tax a génn euh, ñu dellu siwaat nag ni ñu koy defee samedi bu jot ci waxtu bii rek ni ñu ko defee woon keroog xam ngeen ni direct bi dafa taxoon ñu dagg suñu émission daanaka vingt minutes wala vingt cinq minutes lañ ci am waaye nag comme la ñu yëkkati woon dafa am solo ñu bari itam jàppoon ne warees na cee mën a waxtaan lu yaatu loolu moo tax rek tey jii ma delloo si waat caamaas ñu fas yéene seq waxtaan ci mbir moomu nga xamante ni moom la ñuy wax anytime ak yenn ci gaspillage yi nga xamante ni dafay am ci biir eh, cérémonie yi moo xam ngénte la moo xam ceet la te léegi sax law na sax nag ba ci dëj yi mu doon loo xamante ni daal jàpp nañu ne ñun bokkul ci li ñu moom te guddi yi ñu toll itam bokkul ci li ñu tal rama docteur yu jeeg ji di itam mu ngi ci yoon bi di ñëw daanaka yegsi na su ko defee danañu seq waxtaan wi ànd ko yéen Euh, ci 88 628 14 13 wala 00 221 33 841 23 34 mooy numéro yi nga xamante ni moom la ñuy àndee ak yéen yeggagunu foofu nag damay bàyyi sama invité Thiamas mu nuyoowaat ak euh, mbokki téléspectateurs yi su ko defee rek euh, ñu daal di xuus ci waxtaan wi comme ni ñu ko nam ma amalee ci kattanu borom bi doom bàyyi nuyu naa la. soxna maa lay ziar. maa ngi lay fay. dina ñaanal yàlla sunu borom defal la jàmm. amin yaa allah defal la sutura ci barke Seydina Muhammad amin sallallahu alayhi eh, di ko ñaanal eh, El Hadj mi nga xamante ni nii moom moom kër gi mm-hmm. ak soxnaam mm-hmm. ak bépp employé boo xamante ne nii mi ngi ci biir kër gi dëgg la di ñaan yàlla eh, kër gi yàlla na suñu borom def yiw def ci barke Seydina Muhammad amiin yaa rabbal aalamiin ko jëfe rek jéggaane ko dem ñaanal ko sunu xalifa bi mhm. Seydi Aboubacar Sy di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla may gudd fan ko ànd ko wér amiin di ko ñaanal jumaam ji yàlla nañu ci jiite ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi yàlla nañu jiite ci jumaam ji ci barke yonent bi amiin ba ma ko di ràpp na ma ko waxee woon di ko di ko ñaanal xaritam ba Serigne Mountakha Mbacké ndeysaan ko ñaanal yàlla yàlla di ko ñaanal gépp xalifa diine yoo xamante yaa ngi ci réew mi di ko ñaanal nag kilifa réew mi Mm-hmm. nga xamante ni nii lu jur jàmm jàmm ko gën. di ko ñaanal yàlla yàlla na ko sunu borom defal jàmm. amiin defal ko sutura ci barke Seydina Muhammad. amiin yaa rabbal aalamiin moo xam pouvoir la moo xam opposition la. Mm-hmm. di fa xéewal ci barke yonent bi. amiin daal loolu nuyu antenne naa bàyyi ñu doxal nag. ndeysaan doxal ndax bii bii passé dafa am lu ñu xojoon waaw te fi mu toll nii waaw loolu loolu ñu nekkoon ci ñu doon ko bëgg a yàbbi tey léegi doon ko bëgg a yàbbi tey jii nag nan nanu teel a daggal foofu rek jox la nga continuer <laughs> mu ngoog donc on a largement le temps incha allahu taala war ko waxtaane mais Thiamas bëggoon naa xam sa relation ak waa Grand Yoff en tant que artiste en tant que célébrité nga dëkk Grand Yoff euh, lan mooy sa relation ak ñoom sant yàlla ndax Grand mhm. la melting pot Euh, Grand Yoff mhm. euh, li dal Sandaga moo dal Grand Yoff dëgg la xaalis bu yóbbu Grand Yoff mm. boo yóbbu Sandaga mm. ñu wecc la ko dëgg la waaye làkk boo làkk Grand Yoff ñu tontu la ko tigi xam ba xam dégg nga ma maa la dégg Grand Yoff sama xel mi dawal naa ko ci njaago yaag <laughs> pël yaag séeréer yaag yëpp raas la riir macha allah raas wu la riir alhamdulilah rabbil alamin boo ñëwee Grand Yoff fekk ko fa mhm. ñu nag ñoom ñoo juddandoo ñoo yarandoo ñoo màggandoo dëgg la 66 quartier la 66 mm-hmm. quartiers quartier kon Grand Yoff rëy na. 66 quartiers la. Mm-hmm. wax dëgg yàlla euh, yi dal yeneen gox yi dalunu ñun. dëgg la ñun ñu ak njaago yi ñoo juddandoo ñun ak pepeel yi. mankaañ mm-hmm. yeeg ganee yaag olof yaag waala waala yaag séeréer ñun raas yooyu ñoo juddandoo yarandoo màggandoo biir Grand Yoff. kon boo di ci wàllu waaso moom am amu fa. non non amu fa. ndax Grand Yoff kenn mën ta xas kenn mhm. ndax ku ci nekk da dóor nga sa doom mu dàq dugg kër njaago wala mu dàq dugg kër saraxule wala mu dàq dugg kër séeréer dëgg la te ñun amuñu woon xaar ma yàlla suñu diggante waaso yooyu mhm. ñun waaso yooyu suñu biir sax ñoo juddandoo ñoo yorandoo ñoo màggandoo ñun ñooy ànd mhm. moo tax alhamdulilahi rabbil alamin dëkkub jàmm dongu dañ fa dëkkee macha allah alhamdulilahi rabbil te la fa nekk ci différence de culture kenn xam na mu toll est ce xam ngeen tey ba doon wul culture dëgg boo ñëwee Grand fekk ko fa da am lépp da am lépp dëgg culture yëpp fa doon daje tey tey bu manifestation amee wala euh, wala dara am au Grand Yoff ba nga gis ñoom ñëpp génn mhm. nga xamante ni nii nga aada ak cosaan ak bëgg sa culture mhm. Grand Yoff la fekk baax am na solo loolu nag mooy Grand Yoff mais alhamdulilah rabbil alamin mhm. euh, ñun ña a dëkk na euh, fa xaar ma yàlla kenn macha allah ñun ña fa dëkk wax dëgg yàlla ñoo gën tuuti ci ña a dëkk waaye fa nañu juddoo fa nañu yoroo fa nañu sagoo ndax fa nañu amee soxna fa nañu amee suñuy doom fa nañu la macha allah waaw ndax bëgg nañu ñaan nañu yàlla guddi guddi Grand Yoff nañu fanaan bu ñu gisee doomi doomi Grand Yoff sax suñu xol day sedd guy nit bëgg fa dañoo bëgg doomi mhm. koo xamante ni day tiitaroo fa nga dëkk mhm. moo tax nga la am na solo te noonu noonu ma leen di ko nan may sagoo ndeysaan te te boo ma fekkee ak ñoom da nga naan caama waa mais comportement man ko noonu fii laa dëkk moo tax mën nañu faa wane rëy mën nañu faa wane tiitar mën nañu faa wane dara ndax fa noonu juddoo fa noonu yoroo fa noonu màggee mhm. lam leen xamel lam leen xamal lu ko raw nan ma xamal mhm. te donte ko ku ci nekk ñu ngi ànd su sutura di ànd ci jàmm ak ub teey bu njaaga xewlee ñu demee leen pépéli xewlee ñun ñëpp noo bokk fi ne amuñu problème boobu d'accord da nga gis reer jóge kër gee ñëw kër gee dëgg la léeg-léeg nga gis añ jóge kër gee ñëw kër gii wallaay dëgg la te doo fa dégg mukk na ko nit na la bàyyi sa bàyyi pepel bii nga yàndal d'accord mais boo demee ba dégg euh, yenn insécurité yi nga xamante ni dañ koy faral di wax ci Grand Yoff mu mel ne que ñenn ñi dañu jàpp ne ña jóge ci àll ba ñëw ñëw fa ñëw indi fa lu mel noonu rocceekuwaat génnaat yow naka nga koy dund naka nga koy expliquer waaw xam nga Grand Yoff waaw euh, rëy na rëyul wax naa la léegi léegi 66 quartiers la 66 quartiers Grand Yoff ñu fa nekk ñëpp xamante mhm. xanaa li ci dolli si sax mooy Euh, quartier nouveauté yi quartier nouveauté yi yu bees yi nga xamante ni ñoo ñoo ñoo wàll si ci Grand Yoff mhm. waaye Grand Yoff ku fa dëkk yaroo fa mhm. màggee fa mhm. munoo faa def lu umpe dëgg la xaw ma ba xam dégg nga li ma maa la dégg Grand Yoff maa la dégg doo gis pur Grand Yoff dëkk fa yoroo fa màggee fa indi fa lu bon te ko fa boobaa di ko wéetoo dëgg la waaye xale yi léegi fu ne nañu wuti xame xale yi fu ne nañu dem fu ne fu dem leen tëgg dikk leen tëgg fu ne la yindi léegi-léegi nga dégg fa njombe goo xamante ni nii mm. yàlla seede ni nii ku ko def dëgg du doomi Grand Yoff du doomi xam Yoff Muhammad dëgg la yàlla rek moo tax may loolu il fallait que nga leeral ko ci plateau bi léeg-léeg nga dégg koo xamante ni ñu naan njombe gii am na Grand Yoff mm-hmm. nan ko topp buñ ko toppee xool ko barke Alaaji Malick Si ndeyam ak baayam amul kenn koo xamante ni mi ngi yeewoo Grand Yoff mm-hmm. amu fa mais nag dëkk nag bu màggee wàlliyaan si day bari dëgg la dëkk bu màggee dem leen teg dikkaleen ki day bari mhm. boo xoolee bu newetaan amee euh, euh, euh, bu Grand Yoff génnee mhm. da ngay xam ne lii Grand Yoff rek ko man la lii Grand Yoff rek la ko sunu borom may ci côté mobilisation ci kooku côté taxawaay mhm. boo xoolee professionnel yu nu am alhamdulilah rabbil alamin ñu ci ñu fay yeewoo au niveau de Grand Yoff suñuy fierté lañu te bu leen neexoon ba ñu dëkk Grand Yoff dëgg la bu la neexoon ba ñu dëkk Grand Yoff te am na ci ay professionnel am na ci ay cadre yoo xamante ni nii biir Grand Yoff na ne ba nga sa baaraam. waaw Khalifa Ababacar Sall Grand Yoff lay tiitaroo. dëgg la. am am déet. dëgg la bu baax ma Diop Diop Grand Yoff lay tiitaroo. da monsieur le maire. Pam Diop Diop wax maa ko jëkk ci télévision. est ce que xam nga leen Adama Faye. sama xarit di sama lépp Adama Faye. dëgg la di rakk Marème Faye Sall. waaw Grand Yoff lay tiitaroo. d' accord Cheikh Bakhoum. waaw nga xamante ni nii mooy DG euh, ADE. mooy mooy Grand Yoff lay lu mu mën a am ci àddina ba Grand Yoff gënal. dëgg la Kaay ma basal la kenn Boubacar Camara foo koy dugal. Mimi Touré bokkul Grand Yoff. Mimi ah, laa ilaaha te kuy xëccoo nag nee nga sew songu Grand Yoff ndax la fa nee tax ndax la fa nee tax macha allah waaw la fa nekk nag waaye nag la fa yor la fa nekk <laughs> kenn du ko téyel ñun noo ko téyel suñu bopp dëgg la kenn duñu ko téyel nag mhm. ko téyel suñu bopp waaye am na ci ñoo xamante ne ay sagu Grand Yoff lañu mhm. waaw lu ci mel ni ku ci mel ni ay Aline Badara Kebe waaw nga xam ne professionnel la waaw lu ci mel ni euh, euh, euh, suñu booy boobu di football équipe nationale équipe nationale waaye bi lay fàtte nu mu tuddati am na élément boo xam ne xaar yàlla la dëkk xaar yàlla d'accord ñoom ñëpp ay doomi Grand Yoff lañu mhm. ay ay ay ay suñuy Tony Silva mi ngi doon góolu ci ga ci ci doon góolu équipe nationale waaw mais Grand Yoff la yow xoolal ci nga ñëw ci théâtre kat yi ñoom a Diallo Kumba Gawlo Seck Grand Yoff la nekkoon dëgg la ñoom Rouba Seye Grand Yoff la ñuy yow Rouba am ci ñoo xam Pape Faye waaw Pape Faye tey foo ko dugal la yow kon grand yof dara nga fa ah. <laughs> non dinañ def émission. spéciale yoo xam ne sax li ñu amati ñoo xam ne sax li mu ma leen. dinañ def émission spéciale grand yof laa ma continué jël. loolu moo ma jaaxal moo tax fi mu nekk il faut ma arrêté. <laughs> suñu continué woon tuuti jël. non non am na solo mais na ne bëri na fa yu fay xew. non il faut que il faut que suñuy gox. yu mel ni yu demee noonu ay grand yoof ay yoof tëngéej yooyu il faut ñu def ci ay émission yoo xamante ni nit ñi dinañ xam gox yi. xam la fa nekk xam li ñu doon su ko defee rek xale yi dinañ xam fu ñu teg seen tànk bu ñu xamee mag ñu li ñu liggéey waaw léegi dama lay masal dara Mbayang man am naa risque waaw jël la waaw nga jël say caméra ñu song Grand Yoff amul problème ma jël la nga jël say caméra ñu song Grand Yoff pourquoi amee ci loo xamante ne bu la ko won mënoo koo xam surtout waaw mair Mbaye mooy toog nii di jaay ay Dakar <laughs> maire yi mooy toog nii di ganiyee ba ca koñ ba mooy toog ni di saabu te ñooy yendandoo ñooy màggandoo añ bu jotee ñoom ñëpp ci marché ba ñooy bokk toog añ su ngoon jotee ñu yenn seen dàmb ñu yenn seen dàmb dem ñibbi dem dugg dugg suñu kër amuñu problème boobu macha allah yàlla amuñu problème boobu macha bëri na fi ay cadre ñu ni woo ci réew mi mm-hmm. billahi grand yof ne ne ne ne yeewoo te bari na ci loo xamante ni ci wàllu élection bu fekkente ni gox yee gox goxaat la ku gañe Grand Yoff ku ne da ngay am doole laa ilaaha illallaah yow Grand Yoff fu mu toll nii na ma yàlla émission bi émission bi en time la dégg nga du Grand Yoff 88 la 628 14 13 moom la ñuy àndee ak yéen il fa que ñu waxtaan ak Thiamas ci Grand Yoff ndax euh, fa la fekk baax moom Thiamas ci boppam sax dinaa waxtaan ci moom euh, beneen yoon parce que bëggatuma gi mu gëj ci émission kër gi ndax ni ma leen ko waxee mhm. ay kàddoom am na solo lool tabarkàlla macha allah te nag man dama ko soxla ci sama wet mhm. donc euh, mi ngi noonu Mbara mun nga ñu xoolal téléphone bi maa ngi nuy bu baax baax mère Awa Diallo yaayu Mbara defe naa noonu la Awa Diallo wala Fat Diallo après nga leeralal ma ko mhm. sama soppe boobu maire Awa Diallo euh, tabarkàlla ma nga fa lekk ci Kër Massar euh, ca tollu Ablaye Wade maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar daf may bàyyi xel te di ma ñaanal yàlla na ko yàlla dëgëral yaayu mbaram yi ci kër gi donc euh, Thiamas mhm. ñu jëkkee woon keroog anytime xam naa ni maa ngi xaarandi ba tey Rama jigéen la mhm. bëggoon naa sax nga ñu ubbi parce que dama leen ne docteur yu jeeg yi nga ne ma kan la ci mhm. ndax docteur yi bari nañu lool ndax jeeg jaa ngi faju am déet xam naa ni loolu beneen yoon lay doon mais ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy anytime Euh, anytime wax naa la ko keroog waajur yi sonn nañ ci lu bari lañ ciy dépensé bul je bul je an matul un million ci ñenn ñi ndax am na ñoo xamante ni dañ def ba deux million trois million mais dangay fekk ki nga xamante ni moo mel ni soxna Mbaye nga xamante ni li mu am da koy tappalaatu wala mu kaaje ko comme ñii wër kër yi géer ñëpp wayaani ñëw bëgg a jël huit cent mille def ko anytime fekk sa doom warugar lan lañ ko jox téeméeri junni wala un million nga bëgg a génne any time daal di dugal ci biir keroog ñu waxtaan ci lu am solo waaye fa nga taxawee woon mhm. dama bëgg foofu la ñuy jëkkee muy col ko gi nga xamante ne dañ koy sol d'abord ci any time bi foofu nga toll woon laataa émission bi di dagg ok alhamdulilah rabbi alamin mm. docteur sax yegsi na ah docteur yegsi na docteur yegsi na docteur yegsi na euh, waaye da nga euh, koy dalal de euh, ginnaaw bu nu ko avant ñu koy dalal waaw dafa am tam bi nga xamante ne nii da ah, am na ko ne ci ligne bi de jël ko ne ko allo sa émission la allo allo allo. daa dem ah? xam naa dafa dem ñu ngi leen di ñaan ñu xool retour bi tey wàññi télévision yi su ko defee rek 88 la 628 14 13 mbokk asalaamaaleykum. aw oh, dagg na bu ñëwaatee ñu ngi koy xaar. Euh, mu dugg rotal xalaatam ci li nga xamante ni moom la ñu yëkkati tey muy wàllu anytime waaw allez-y Thiamas euh, soxna si mhm. xam nga wax dëgg yàlla boo gisee ni xale yi di ko defee waaw am na jàngat mhm. ndax loo xamante ni ni culture la boo xamante ni ni amaana ñu doon ko am fu ñu ko jëlee mhm. indi ko fi xalpulaar yi di ko def naar yi di ko def mais ci anam ban lañ koy defee dëgg la ci ban anam nañ koy defee. surtout waaye man mënu ma comprendre. Mhm. waaxu dugg ci en état bi ci bi man bi ma gis sax ñoom fuddanatuñu. fuddanatuñu. waaw fuddanatuñu. d'accord ponk lum ñuulal na ni jël ñuulal seen loxo ba mu ñuul kuk. dëgg la kooku kii la kon déjà rek boobu en time tur woowu dañ ko war a soppi tudd ko ñuulal time. tatouage bi waaw moom lañ doon wax keroog ñuulal time ba. ñu ne déetawaay nga gis ay ay ay ay ñoo xamante ne nii. Mhm. xamul ni ëllëg image bi ci boppam day wax. waaw. te am na ci image yoo xamante ni du fi jóg illaa yawmi diin mhm. nga jël sa sër ne waggeet sa kaw waaw téye tëdd di def noo xamante ni onze billahi mina shaytaan ji sol sol baatin say mbokk di ko gis say nawle di ko gis xam nga yaakaar ne loolu sa wàll ba bu ëllëgee ko tegal te koo ci wax xam nga luy baatin luy baatin waaw lan mooy baatin mbayag <laughs> jaamaas waaw mais ku jaay loolu ku jaay baatin dëkk koy jaay baa boo xam te day nuroog satin onze boobu da la ñuy def. imagine toi nga ñu toog gars yi lal chaise. waaw ñu war a toog toog ay mbokkam toog. Mm-hmm. ñu fuddoon ko di ko woyal. waaw mu toog. mu neex ba dee waykat ba toog nee. Mm-hmm. ña yor xale mi yàgg wala am cóol toog nee rimbal ràmbal ko. Mm-hmm. toog di ko waxtaan. xale bi ñu fuddunul ko ba loxo ya rafet tànk ya rafet. dëgg la nga xam ne fa nga toog kenn du kenn du jóg. waykat bi rek dañuy dégg. mu naan Samba Mbayaan Diouf toog di way ay maamam. xamal ni ko fan la jëm. fan la jóge at fan la jëm dëgg la sëy bi fi mu toll nan la ko waroon jàppee mm-hmm. nan ngay jàppee say goro mm-hmm. nan ngay jàppee say borom kër yiir ko ci enetaayam ba mm-hmm. nga xam ne moom bu fa jógee ci kàttanu yàlla ak nga xam dina xam ban charge la yenu waaw waaye léegi léegi li ñuy def kenn daa xam lu mu doon summikul ñë léegi te dañ koy otesu dañ koy dañ koy otesu dañ koy otestu dañ koy ñoom ñëpp a koy otes sol loo xamante ni ni onsi billahi mina shaytaani jëm te loolu la yooyu ngay partition yi jël dagg ko di mooy wane ci tiktok bi d'accord TikTok bi boo ko seetaanee doo ci gis dara lu extraordinaire. déedéet ay baana lay wan yu nu ajak ay sër yu nu mu demanteeg ay lan lu nu monte loolu ba kañ. jaaxal na ma waaw loolu ba kañ loolu ñun loolu lan lañ ci mën a gañe. jëkkër yi takk ak baay bi ci biir kër gi mbaa jàppoon ne am nañ ci responsabilité. waaw xam nga euh, euh, euh, Mbaye changement nag dafa am. ci naka ci lu bari. Mhm. takk bu njëkkoon ak takk léegi bokkul. bokkul déedéet. Mhm. fu mu toll nii moom ñun ñooy doxal ba gisal suñu bopp. Mhm. dugg ci. dëgg la xamuñu kun dugg ci li mu doon. dëgg la xawma fu nu dugg. dëgg la mbëggeel mënu ciy ba nu dugg ca. ko indil suñu ndey indil suñu bàyyi. Mhm. ne leen kii la ñu bëgg. foofu la mhm. jamono toll. d'accord loolu bu njëkkoon ko woon. déedéet déedéet sañoo ko woon. mais guddi yi ñu toll. yaay yaa koy bëggante ci Facebook bi wala WhatsApp ba yaa xam foo leen bëggantee. nga fab indil sa ndey toog na ko yaay mi ngi nii kii laa bëgg. yaa it jël te parce que day bëgg lu neex doom waaw dëgg la waaye bu fekkoon doonoo delluwaat ca démban góor gu nga xam ne ndey mooy sol dàllam waaw xamal ne carrément kër war ngaa dem kër diw mhm. dem seeti leen nga xam ne da nga fay dem yenn fa ñaari fan ñu boole laak doomi diw nga toog fa di ko xool jàngat ko xam taxawaayam xam toogaayam léeg yaay sax dem ngénte def fa ñaari fan dem ña gis xale ba léeg mu ñëw gàmm wala màggal wala dara gis xale ba def ak moom ña nangami fan xool ba xam na muy doxalee ak na muy waxee ak nit ña waaw mu yegg yebal doomam ne ko doomi diw jëdey maa ngi moom def nañu ñaari fan waaye la ma gis xam naa ni boo ko indee si sama kër gii mën naa am yaakaar donte nag yaakaar rek ngay am yebal la waaw mais léegi loolu dàq nañ ko léegi dafa am fi jamono toll fi jamono toll moom mooy ndax mooy euh, actuellement statut statut <laughs> te booy ñi ngi xeetu collage goo xamante ni nii billahi ku ci takkat jabar yaa ngi daanu collage luy yow yii def ci xaw ma synapse ma waaw non mais muudu muudu filtre yi mais muudu muudu yéen ciy dee. ci naka. ah da la filtre yi da lay jox tana kanam goo xamante ni nii teint boo xamante ni leer na la leer yàlla ni amoo ko. dëgg la. montel la sa yaram def sa yaram noo xamante ni yow leer na la leer yàlla yow melaw ni. defar xef yeeg peru bët yeeg yëpp. laa ilaaha illallaah da ngay mel ni janjaar yi waaye bu nu yeewoo ba Chine la yaay rew bukki bi ca kër ga. loolu kenn mës koo gis <laughs> moo tax ku topp ku ci topp estati yi wala nga topp ci <laughs> di nga daanu jël bokk na gars yi di dem bëccëg bëccëg ana nga maa ngi maa ngi nii nga wóor na yow fii nga dugal sa xaalis waaye bu ci loolu amul jàppal ni bis bu yàlla sàkk yaa ngi ci réew wala yaa ngi ci kumpa ci mbetteel ngay dund ci mbetteel ngay dugg ma loo la gis nag bu mu la bett 88 la 628 14 13 mooy numéro bi ñuy ànd ak man dama xuloog yow sax man tëdd sa kër ba heure bu la neexee ngay sogo egsi ak ni ma la namee ci biir kër gi moo tax caamaas wax ma ma ne ko man rama ñoruma de bàyyi ko foofu <laughs> nuyu naa la ziar la petite sœur <laughs> maa ngi lay a a sama xarit sama mag sama xarit. nuyu naa la loolu looloo am delloo ziar. wala bëggoon bëggowaatoon a jàkkaarloo ak yow ndax yoo xam ne damaa nam sa kanam. yëg nga ni loolu laa doon wër boobu ba léegi. <laughs> waaw kon yàlla def na ko. <laughs> bisimilah di nuyu Thiamas sama sama euh, sama frère. sama góor maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziara di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax waaye di nuyu téléspectateur 2STV yëpp. Mm-hmm. di leen wax ni namoon naa leen macha allah. ñoo la raw namoon sama mag namoon sama xarit di jéggalu bu baax nag. ndeysaan embouteillage ma tëye woon rek. ndeysaan doo ma ko laajal. docteur Diegui ñu ngi koy wax sànq de. <laughs> woon boo ñëwee ñaa demee ñaanam laa ne ab ponkulum docteur taxaw <laughs> ah, sa gin ci ginnaaw. mën naa faj ku ne de. xaw ma nag lu si te lay faj xaw ma xuréet xaw ma lu muy waaye kii kumtim faj la moom mi baa xam nga li ngay wax mbañ kii mën naa faj ko ne di <laughs> te pourtant sax nee na ma docteur yi bari nañ de mbaa est-ce que dinañ faj waaye nga ñëw mu soppi doxalin noonu <laughs> ah, daa miir <laughs> déggal naa fekk ci waxtaan bu am solo mu jëm ci wàllu anytime mhm. yaakaar naa ni jigéen nga yaay nga mhm. man moom dama leen ne ndokk yàlla bi nga xamante ni bari lew may jigéen benn dong laa ci am mhm. ndax euh, li xew ci réew mi te kanam la jëm yaakaar naa ni d'ici dix ans euh, waxuma la anytime lañ ñuy indil waaye semaine time te bu boobaa dina metti sa gis-gis ci phénomène boobu lan la mhm. am na ko ñëw ñu jël ko mbokk allo allo oh là là nañuy wàññi télévision yi daa mel ni mi ci mbedd ou bien alo allo ma ngay suus moom euh, ñu xaarandi ko waat nga ne Rama allo waaw sama sëriñ oui sama sëriñ waaleykum asalaam wa rahmatullah allo asalaamaaleykum ñu xaarandi ko mbara xool ñu retour bi macha allah su ko defee ñu rotal seen xalaat ndax am na ci solo Rama ma bàyyi la waat ak kàddu gi. macha allah soxna mbay nga thème bu am solo nga indi. Mhm. thème bu ama am am solo. jërëjëf boo xamante ni si nag dina jàppale ñu bari dina dimbale ñu bari. Mhm. dina tax tamit ñu xam fi ñuy teg bu baax suñu tànk mhm. ndax anytime mën naa ne tay la mhm. anytime mhm. yàggul déedéet waaye nag mu ngi bëgg a tukkal jamono bu baax bu baax a baax a baax yi ma ci gis wax dëgg yàlla sa doom xam nga toujours dañ naan bu yaay di xàll mba bu ñay xàll mbabal doom tubay doom jaa tax bu fekkente ni si yow sa doom da ngay jënd or di ko jox di jënd mbubb mu baax di ko jox mm-hmm. loo xam ci lu rafet rek nga jënd jox ko boole di koy yedd ak di ko di waxtaan ak moom bés bu rafet nga cay xaar dëgg la dund nag ba muur sa sa sa doom mm-hmm. mu sëy loolu dafa neex mm-hmm. wallaay sa doom toog ci sa pooj toog ci peggu yaayam waaw ba ñu maye waaw dafa neex. Mhm. macha allah dëgg la. loo mën ak loo mënul yëpp da nga ko cay def. da ko cay def. waaye nag damaa bëgg ñu xam ni doole yamul. mais ñun dañ daan tànn béer sax. ok dañ daan takk gi dañuy tànn béer tey bu subaa la mariage bi réception bi. wala ñu ne dañuy xumbal. xumbal fuural teg ci mbedd mi musique. yooyu lañ daan def daawul metti léegi nag anytime lañ jël léegi nag anytime bi dafa metti mbokk ngi noonu ci ligne bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum. allo oh là moom tam dagg na xaar bi dafa yàgg nga ne any bi dafa metti any bi dafa metti mhm. dafa metti torop mhm. imagineel tey ji sa doom ñu may ko cinq cent mille wala ñu may ko million un mën naa ne cinq mille bi lépp ci any bi lay dem man ma gis ko fay bâche quatre cent mille fay kii animé quatre cent mille muy huit cent mille merci beaucoup col gi ñëwagul dégg naa dañuy servir ay laax ci biir ak ay ay hmm. yi ñuy déguster yooyu ci biir dégg naa ko waaw mhm. loolu fan lay jógee. mën la ñuy def ci biir. d'accord léegi suba ñu war a xëy. def mhm. xew bi mhm. te anytime solatuñu benn mbubb. déedéet ah, déedéet du benn mbubb hôtesse yi ñooy sol benn. mbubb xanaa toogatul fuddu. déedéet fuddunootuñu de solatuñu benn mbubb. ba xale yi li ñuy sañse ci anytime bu ñu xëyee dañ naan kii lan la war a sol bu subaa. allahu akbar. bu subaa nag nga war a sol fukki mbubb. léegi kan solatul juróomi mbubb réception loolu la kenn solatul juróomi mbubb. imaginel même bu doon million lañ la may. Mhm. yow deux million yëpp yamale nga ko ci anytime bi. te am na fu mu xajoon. te am na fu mu xaj. mbokk allo allo allo salaamaaleykum da ngay wàññi sa télévision. oh mi ngi def retour. Mbara maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax yaa ngi def lépp pour euh, euh, gars yi mën a dugg mais mu ngi noonu jéemal rek balaa jeex <laughs> gars yaa ngi xëccoo ligne bi waaw nga ne dafa am fu mu xaj man ne dafa am fu mu xaj mhm. ñu la mayoon cinq millions am na fu mu yi dugal ko ci dugal ko ci anytime wallahi mu yàq 2 millions 2 millions mën nañ ko ci anytime mën nañ dem ci anytime yow bâche bi rek ci lii xew léegi bâche bi kese bâche fermée bi ngay def kese waaw li Mbaye wax léegi day yóbbu 400000. allahu akbar ak tapis rouge bi sañse yi doog a ñëw. ak animateur bi orchestre bi ñëw indi orchestre. waaw kay ka jël traiteur. waaw. moo indi guddi gi mu indi amuse-gueule yi ci guddi gi. waaw macha allah ak laax beeg yooyu ñuy servi. waaw xale yi bu ñu xëyee nga war a def nag sa réception jàppale woo sa yaay dara nag. déedéet. yow lañu la joxoon lépp ci yow la yem. wallaahi dëgg la. yaay jaay taxaw mooy xew xew wi. moo lay mottalil sax yow sa sa sa sa ay ñaw moo xam ay nattam lay teg di def ci cher na cher moo xam ay gànjaram lay jaay cent et quelques mille dëgg la benn ñaw dëgg la nga bëgg ñaw la fukki ñaw fukki ñaw di solo di solo du si meeku bu nekk ak dàllam ak pochetam lay dëgg la coiffure euh, suba coiffure ngoon mhm. maquillage suba maquillage ngoon loolu yëpp xewoon na mais dafa gën a metti dafa gën a pur mhm. bu ëllëgee ñu daan ne ah diw ko juróomi million lañ ko may. waaw ah yaay ji la ñuy xaar nag ndax 5 millions lañ may doomam. waaw te fekk 5 millions yooyu yëpp moom dolli na ca sax ay million wam ca xew wa. bu baax war a ñëw jàkkaarloog say goro. 5 euh, million man keroog dama ko doon déchiffrer Thiamance ma ne ko dañ lay jox 1 million. Mm-hmm. jox la ko warugal ay jigéen bu ñu ko indee boo amee ñàkkee chance ba ay jigéen indi ko musiba dal na la dëgg nda léegi ñenn ñi li ñu xewal mooy góor ñi ñooy yóbbu warugar yi mhm. moo xam di jaay ji la papa ju ndaw ji ñu mhm. dajale dem yóbbu warugar yi amul mhm. problème mais léegi bu ñu nee millions yi dañ naan ah laay laay la laa lu tax ñu di ko jox góor ñi ñu di ko yóbbu jigéen ñi lañ koy jox ñu di ko yóbbu day daw responsabilité pour xaar ca njukkal su ko defee ñu génnee ñaar fukki junni wax naa ko keroog caamaas njukkalu xaalis ba génn fukki junni euh, liminaata guróog paas génn fukki junni reeru góor bu góor reeru góor bu jigéen ndokkeelu njikkee gën na ko lu desati ca million ba. ba pare euh, kii ba daal di taxaw jaam ba daal di taxaw. <laughs> ñu ko jox mosali. géwal ak jaam dañ ko calculé keroog muy juróom fukki junni. <laughs> mosali ak ñamali nga mosali ak ñamali kañ. nga daal di jël loolu yëpp nag yow daal di. mu ngi noonu. boo jëlee loolu yëpp yóbbu lay des sa xaalis ba du doon dara. ba pare nag nga taxaw bëgg a defal anytime sa sa sa sa doom. bëgg a defal anytime sa doom. léegi nag ñi nga xamante ni ñooy sunuy célébrité sax. Mhm. man damay wax ne nañu ma baal maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp parce que wax dëgg yàlla. Mhm. mësuma am problème ak benn célébrité. Mhm. mais damay wax ne am na ci loo xamante ni boo ko jàngalee ci média. xale bu jóg day yaakaar ni looloo baax. ki nekk ci biti itam day xool ne xoola Sénégal li fa xew. parce que bu fekkente ni célébrité nga ngay def anytime. dépenser ci alal ju bari léeg-léeg yaa ko liggéey léeg sa commerce la loolu léeg-léeg nangam sangam nga def sa fête loolu yoonu mbay ak nekku ci ndax ku kenn ku nekk sa bis nga am. Mhm. mais def ci melokaan woo xamante ne comme par exemple ni Thiamas doon wax Thiamas summeeku. Mhm. sol baatin yi ñuy wax. Mhm. def beeco tama yi dar la di lëmbal léeg-léeg saay-saayu tamakat bu géwal boo xamante ne da nga koy xool ba mu yàgg mu yëlëb caaya ji jëm ci yow ah donc image la dañ koy gis dañ koy gis ci télé tëggkatu sabar bu fecce fecce fecc ba tëb ne la tañax te lépp ci entertainment bi la mu nekk nag image yoo xamante ni dafay des ah, góor gu ne góor nga pooju xees ëpp naa nga teg <laughs> dégg nga problème booleeg di lëmbal xam nga booleeg di xam nga di lëmbal du wut si borom xam nga soxna <laughs> benn jàngat rek laa ci am mooy euh, pourtant naar yi ñu ko doon def bu baax bal tàkkul sagar xëy ñu gir gi dëgul dëgul ndeysaan tukulóor yi ñu ngi ko doon def mhm. boo leen fekkee seen aada ak seen cosaan dañ koy def mais da mbir mi du bouger yotaa. wax naa la sa boo fa ñëwee. olof lu mu dugg moom culture pure nga fi seen. Mhm. yow da ngay bëgg sax def loolu. olof lu mu dugg moom ñun ñun ñoo ci dolli. Mhm. Mhm. ñun ñoo ñoom ñoom fi dañoo liggéey ba indi ko fii ñoom. ñun ñu yemoon ci tànd biir ak i fuural. wallahi bu ñu xëyee suba def réception. léegi ñu dem copier ci ñoom. ba ñu jëlee ci ñoom copier indi li indi saa ñu ca règle ba ak civilisation ba ñu yem foofa ñun yëmul foofu déedéet dañoo wutiwaat leneen taf ca loolu nag moo nu sonal tey bëri na ci góor ñoo xamante ne ni dañoo am problème mu takk jabar takkuñu ko pour ba ragal réception de waaye dañu ko rag takk pour ragal any time dëgg la xam nga ndax lan ndax lan ñu un million <laughs> bëgg a maye jat bëgg bëgg a dem ñaani soxna nga jël quatre cent mille dem jox ko borom baas ba ñu ne day def any time loolu lépp war a jóge ca baatu ko jour réception bi jot nga war a dolli. xale bi ñëw nga war a ko wutal fu mu dëkk ak mu dëkk yow yow kañ kañ ngay pare fi mu dëkk. kañ ngay ajour doo ma sa pare. waa léegi mu dox boo diggee di diw takk na bala nga ko diggite yàllaa xam. Mm-hmm. mbayang korog waxoon na lu am solo hmm. yow jàppal ne boo yuru huit cent mille sept cent mille boo sàggoon takku jàkk nga yem te fa nga yem nag hmm. fa nga yem fa léegi nag ñu bëgg ko ñu indi benn phénomène boo xamante ne nii foog nga am benn benn benn benn xaalis bi hmm. pour mën a sóoraale entertainment bi pour mën a sóoraale euh, mariage bi ba pare nga war a toogal sa mais mais caamas léegi a la foofu de anytime bi jëkkër ji moom waru garam lay joxe de. bu ca paree pare bu ca paree pare na ci. Mhm. yaay ku jigéen ki mooy mooy yooyu sànqal si laax bi tooy. dëgg la. soobu ci loo xamante ni mënoo ko. Mhm. bëgg lu neex sa doom bañ mu jooy tey ba tax nga ne dinaa def lu ma mënul. wala léeg-léeg ñi koy def anytime man bu ma gisee fukki. anytime defoon na ko. bu ma gisee sax fukki anytime. Mhm. ci internet bi. juróom-ñett yëpp ay ñaareel lañ. ñaari ñooy gone yu ndaw yu ñuy maye. c'est pas grave da ngay fekk ku ñuy takk ñaareel mu ne damay temps yam dugal ko ci internet bi pour lan dama bëgg a déstabiliser sama sëyub ki fa jiitu. day wane boppam. di wane wu. daa di def nii deux doigts am ay nit daal di def nan. <laughs> deux doigts yi nii. ah am na ku ko defoon deux doigts <laughs> ñu di ko ñu mayee ko ñu mayee ko ca jàkka ji ba ñëw mu naan ñaareel lay doon deux doigts di def nii bàyyi bi ñëw génn beneen bi ne ko teg tekki trois trois nga troisième nga du ñaar dañ la nax. bu ma waxati lii. waaw. allahu akbar dañ la nax. Euh, donc <laughs> bàyyi ma yow non je te daf ci am yoo xamante ni wanewu rek lay doon ak déstabiliser kër jàmbur mhm. te yàlla xam na ni ki jiitu ci kër ga mhm. su fekkente ni mat jàpp na ko dëgg mhm. loolu yëngalu ko déedéet ndax bu fekkente ni wayalum soow la rek moom naan na niw ga bu yàgg kàcc maa fa des ñeddit gaa des ñeddit gaa fa des te euh, kenn ku ci nekk caamaas nag sa bopp ngay nax kon xale yu jigéen ñi nañu moytandiku yenn yi. Mhm. bi ci des mooy anytime bi liñ ñuy lim ñuy jural. Mhm. anytime yi nga gisoon daaw yëpp. Mhm. ci internet bi. sëy ba fu mu mujj rama. dëgg la dëgg la de. ñu ene woon daaw. Mm. ñu tey ji delluwaat nañ. idda nañu bu ma waxati lii. woon daaw idda nañu nañ seen. ñeene woon daaw delluwaat nañ seen kër yaay. ah waay bàyyi bu ma wax lii waaye. idda nañu turum ma riirandoo gis nga Mbayang. ñun gis nga ñun way jur itam dañ cee am part de responsabilité bu mag bu mag soxna Mbayang tubaar fakal la maye na doomam mhm. def na any time dëgg la doomam def na any time bu mag mhm. sañse na génne nañ ko ci internet bi def nañ lu ne mhm. rama daal di ñëw ne ma ne damay maye sama doom damay def any time di diirante gi nga diiree diirant mooy sóobu ci loo mënul rek nga yemal mbagg dëgg la toppandoo sax maas di doog koo yemal mbagg merci beaucoup waaye danga naan man it dama koy def. Mm. waaye dama gën doomam a ngi nii barki démb boo njaay def ko. te sama doom a gën a jong ma fuuf doomam dangay ene. te fekk lañu may doomi mbay ak mayuñu ko sama doom. dëgg la man am naa question la ñu may sama doom sax moo ëpp fuuf waaye la mbay toogaale man toogaale wu ma ko. dëgg la. nga ni damay nga ni nga ni sama doom day ene. def la nga mën wax la nga mën boo tëddee nelaw wëlbatiku jañaxaat ko jëkkër yi moo sa jëkkër lu la dolli sa jëkkër nag danga koy woo mu dolli la ci suuf. wallaay ndeysaan fekk góor ga yi dajalewul lu du benn un million waaw jël cinq cent mille ya indi la cinq cent mille ba ca des mu a da koy defaree néegam pour toog waajal la ndax nag séet bu sëy si am lu mu am lu fa fekk dëgg la ay bokkam dana ñëw say xarit dana ñëw mm-hmm. nga toogaale loolu mm-hmm. ñu naan la sa jëkkër lu mu la may du la dolli da ngay wax ak moom nag mu dolli la mm-hmm. bu ko defee ngay ngay koromp sa jëkkër léeg-léeg différent yi sax fa lay commencé néew mu jox la ko différent yi fa lay commencé parce que laaj koo xamante ni yorul te muy ku góor waaw da lay far jéppi fa lay commencé jéppi la ba faw merci te lépp anytime baa ko waral lépp anytime baa ko waral d'accord kon nañu xool bu baax fi ñuy suñu teg suñu 88 628 14 13 numéro bi waaw allez est-ce que mënuñoo dellu démb bu mm-hmm. fekkee tamit dem nañ ba lii duñu sonal mm-hmm. fan ngay fan ak fan ngay dégg anytime mm-hmm. Sénégal suy kese donc mais nag dinaa leen de. est-ce que xam ne am na ci dëkk yoo xamante ni ñu ngi fii ci Sénégal boo fa demee billahi boo fa nee en la dugal génn ci biti. demal ba naan en état. taluñu ko. Mhm. am na ci dëkk yoo xamante ne nii ñu ngi fii ci biir réew mi. Mhm. boo fa demee naan en état nag en njaay yow say tànk dootul laal suuf yow. Mhm. waa léegi ñun teenoo dimbali bu fekkee bëgg nañu. suñuy suñuy suñuy rakk takk soxna. bu fekkee bëgg nañu suñuy suñuy euh, suñuy rakk yu jigéen dem sëyi. est-ce que mënuñoo yo woyofal mbir mi ndax tamit soxna si neexul ba te neexul ba tamit yéen da ngeen aj baar bi ah da aj baar bi yi ñi billaay doon aj baar bi mhm. am na ci prix yoo xamante ne nii léegi ci jigéen ñi rek nga koy dégg dëgg la te billaay dañ koy gën di ko manifesté wu mhm. ay diw may na ma cent millions billahi jigéen loo ko defal mérité na ko diw may na ma nangam ak nangam ak waaye jërul ma koy xam takkuk Aziz Ndiaye de moom moom bi pa moom moom moo moom mais mën na ko non ñoom waxuñu fi ay un million de li ñu doon wax naan ay trente million la ko may ak yooyu hmm. dara amu ci waaye bu ma waxati li ñoom ump gis nga sénégalais lu ko ump lay bañ de dëgg yëf yi ump na leen takk gi ump na leen hmm. warugar wa ump na leen ba ci lune de miel bii ñu dem def Dubaï sax ump na leen mais terewul dinañ créé loo xamante ni du dëgg moom fu la gis nga ah, yeggaleel xam nga <laughs> Mbaye waaw xam nga ama ci loo xamante ne nii li sam euh, li sam papa naan ma jaaxaan di tur ndox hmm. defoo kenn sa bopp. sa bopp nga koy def xam nga nax sa bopp weesuwul. Mhm. ñu may la un million. Mhm. nga caméra yi tàkk nga naan man kat may nan ma dix millions. Mhm. waaw. di nga wax ba may la dix million waaye di nga jëf jëf dix million yow. ci bu wér. di fexe ba jëf jëf dix millions. waaw xam nga ndax lan. waaw euh, ku ci nekk xam nga loo mën at loo mënul. dëgg la gis nga ku ko mën. ki ko mën. waaw yéen ko jabaram. waaw def ko ci. billahi man caab ànd naa ca. wàññiwul dara waaye suurali leen ñu ko mun nekk ca ginnaaw. te bëgg am soxna. Mm-hmm. looloo indi sutura si. Mm-hmm. nëbb ko te ñooñu. ñooñu ñooñu foog ñu dimbali leen ndax bu ñëpp yemoon am ñu gédd seen cër. dëgg la bu fekkoon lu waay am génne ko. Mm-hmm. billahi di nga gis ñoo xam ne du ñu génn. waaye nag dinaa la leen. loo bari la bari la bari bari romb loo moomul. romb loo moomul. wallaahi waykat loo mën a mën a mën a def mm-hmm. billaahi gis loo xamante ni nga xam ne yow lii moo ma ko mm-hmm. kon gars yi nañu dellu si waat seen xel te te ci waat suñu rakk yi dimbali waat suñuy doom mm-hmm. ndax maye bi day gën a continuer ñaan gi day gën a continuer loo xam ne nag du fi jóg illaa yow mi diin foog nga xam boo yëkkatee sa tànk fan nga koy teg fan nga koy teg gis nga euh, Mbaye bëri na ci ñoo xamante ni nii man jàpp naa ne sax ñoom seen bopp tooñu seen bopp mais seen yaay lañ tooñ seen yaay waaye da nga gis benn mère boo xamante nii ne ma yàlla baal te jégal ma moom sëy na bëri retraité yàlla mi dara am ci kenn koo xamante ni ñëw na di di bëgg si doomam waaye la la mu pertoon ci sëy bi yëpp da ko ciy bëgg a dabuwaat mm-hmm. mooy ça veut dire que day bëgg a tegal doom ji ay sañ-sañ yoo xamante ni nii mm-hmm. pour mu tegal ko waa ji mm-hmm. waa ji nag bu fekkee dafa nekk ku dëgër bopp ni man waaw bëri lu muy bañ da la naan xam nga lu mu doon soxna si mën na fi yam dëgg la da koy jéppi sax. waaye bu fekkee nag koo xamante ne nag ay ay genre cokkata ba yooyu la nga xam ne doonoo nooy. waaw sama compétit gi nga xamante ni loolu wax waaw. Mhm. yan la nag yan la sëy bi. Mhm. yan la kër gi yan la anytime bi yan la xew mi. Mhm. yan la après xew mi. ak ceet gaag yëpp. yow nag nga dem ba ci mujj gi nga xam ne yow lii nu la yan sa xàqulaay taala attanoo ko. waaw te du dem. waaw te du loolu dem nag da xam ne loolu dem da nga koy teel teg ci suuf. dëgg la te foog ñuy am ñuy gisee loolu. gis nga billaay bu ñu sukkandiku woon ci démb wala am leen luñ jël ci mag ñi indi teg. Mm. barki Serigne Babacar si duñ sonn. déedéet. te yi yiñ fi sa yiñ fi mm-hmm. takkoon ca noona ba léegi. mi ngi dafay barkeel mi ngi dox dafay barkeel ngay dox ba léegi. te cat. Euh, imagine toi benn tànn boo xamante ne nii da ngaa woo Cheikh Fall Dieng. waaw mu ànd ak ñoom Jibi Karara ñoom Xaadim ak ñoom Petit Coppi ku ne ku ne gott ku ne gàddub cool. waaw. ñu def ko tànd tànd biir goo xamante ne nii. nga woo waytal di ko dégg. nga woo galas bongo ca wet ga. ñëpp ñëw taxaw. <laughs> tànd biir ba doo ci ñàkk ko junni. déedéet. déedéet yi waa waa koñ bi waa waa quartier boobu dégg-dégg goo xamante ne nii ancien ka ñëpp jóg. te bégal nga sa doom man de kan ñëpp jóg. Mhm. xam ne léeg-léeg sama compagnie gi léeg-léeg jaar fa rek di di seet seetlu seen doom <laughs> am fa benn dagg wàcc goo xamante ni nii kenn lu mun nañu am tànn béréb bi mun naa dem ba am ñetti fan ñu koy waxtaane dëgg la wallaay dëgg la. nga xëy suba def ci jël ci dem bu place bu sa jabar sa jabar sol xale yi sol robe mariage bu rafet. Mhm. dem ñëw dem ñëw ñu affaire bi rafet bay bëgg a dee. mu yem say ndox di weesu ñetti sol ndax ëllëg du añ waaye dafa mën a sédd. dëgg la. bu xam nga koy xam. Mm. bu gan ñëpp demee. dëgg la bu gan ñëpp demee. wallaay ci nga koy xam. bu gan ñëpp demee. Mm-hmm. nga toog. Mm-hmm. calculer nga ni man man nag waaw man sama xew bi lan ci def. te sénégalais kaa leen kaa leen yàq la ma. ba nga toog ba calculer. la ilaha illallah war a fay say bor. Euh, boo saagunul sax la léegi nag après xew mi yëpp ponk li bor gayam. Mm-hmm. waaw baru desatu nag baak baru tisi yaak. ak boutique ba baru téyër baak bërëm bitig ba. lu manqué nga ne demal ci boutique ba jëli ko ci nekk di ñëw. sa yaay grande commerçante la. la mu yoroon fonds de commerce yëpp def na ko ci. da lam lay def dafay delluwaat à zéro bu ñu ñëwee laaj ko marchandise lu tax amul. wala lu tax nga gëj a voyager temps yi sama yaram dafa neexul dafa am traitement bu may suivre suivre benn traitement. dëgg li nga yoroon sa fonds de commerce moom moo jeex. moo jeex euh, te euh, li may wax mooy euh, souvent nag dañuy wax fan yi aussi. xale yi ni ñuy génnee àddina bari na xale yi li mm-hmm. leen di dal bari na mm-hmm. yooyu yëpp ci xeetu cet lay doon mm-hmm. te anytime yaakaar naa ni baas sa baas bu rëy mhm. ma sàmba ñëw ma dem ba ñëw mhm. guddi gu xaaj ci diggu yoon wa amaana am nañu ca seetaan si sax ñoo xamante ni bokkuñ ca nit ña mhm. nga summeeku ne dungu wane sa yaram di solu di simmeeku di dem ak ñëw di ak say beecoo ko génne say fer ah dafa ne yaa ci ne am na lu ma ciy tiit de ah dëgg li nga ciy tiit moom la ci ñëppi tiit d'accord ndax bët yëpp yamuñ làmmiñ yëpp yamuñ te nopp yëpp yamuñ am na nopp yu bari yoo xam ne lu ñu dégg mu yàqu dëgg la am na bët yu bari yoo xam ne lu ñu xool mu yàqu dëgg la yu bari lu ñu tudd mu yàqu mm-hmm. ñëpp yamuñ mm-hmm. ku ne ñëw nga tëgg nga tëgg sa sabar mm-hmm. mu yëfi jinne tamayaak lépp ci biir wallahi azim fu waay ku ko dégg rek daal di ñëw daal daw ñëw jinne yi ñëw rap yi ñëw nga toog ca digg ba yow dangaa jóg ni dangay ngay sëy te yàlla tax sëy dafa sacré woon dafa sacré woon premièrement nañ ma baal. waaw ñàkk kersa ñàkk kilifa. Mhm. premièrement ñàkk kersa. ñàkk kilifa yow da ngaa jug ni damay sëy. Mhm. te yàlla tax. Mhm. sëy suñu borom a ko moom. dëgg la moo ko kiwal boppam pour bëgg ñuy sëy di ci jaamu yàlla. jaamu yàlla la. ñu war laa takk suba. nga def beeco bu gàtt. Eh. teg ci ay fer. sa goro war naa tiit de. jàkkaarloog àddina. sab ju mbax ni fang. bismillaahi mina shaytaani rajiim ñëpp taxaw. dëgg la ñu set ñeek ñu setut ñi. Mm. Ah, ku ne aj say nga aj say sër. Mm-hmm. di def loo noo xamante ni si. allahu akbar yuuxoo yeeg yëf yi. ak tàccu yi tàccu yi te tàccu tàccu lu ne ngi ci de. waaw dañ ko xamul nag yuuxoo yeeg yëf yi tàccu allahu akbar lu ne di la dugg. nga xëy suba feebar dugg la cat. cat baaxul premièrement cat. Mm-hmm. te bala nga koo def da ngay rocc say tànk ba mu weex. ba mu weex da nga koy eh, léegi ñuy aj dañuy rocc seen seeni tànk ba mu weex. dëgg la bu dee dañoo ñuul dañu koy niinal ba mu niin matt ñu laal ca biriyan. allahu akbar biriyan waaw. biriyan bi. waaw moom la ñuy jël daal di koy laal ci seeni pooj ak seeni tànk bu ñu yëkkatee tubaar fa kaal. foofu mu ma waxati lii yii la ñuy def. bu ko defee cat foofu la lay duggee. nga dugg ca sëy ba mënoo togg mënoo fóot mënoo paase mënoo bale. dang laa meñ teg mënoo raxas dang laa meñ. ñi meb tongoo ñàkk kersa. Mhm. doo toppatoo sa jëkkër doo def lenn yow xam nga lu la safoon. waaw lu la neexoon yow. mooy ñu takk la nga def any time àddina ñëw nga wane sa bopp. mais tamit euh, euh, euh, kii bëgg naa ko laaj dara. waaw. damay dégg ñu naan. Mhm. docteuru jeeg gi. waaw mhm. mais est-ce que amu leen ci part de responsabilité. ñun docteur yi bu baax. xam nga nag lan yéena man jàpp na ne léeg-léeg da ngeen teg seen émission. Mhm. waaw teg seen i xar baax. Mhm. seen i arsenal. Mhm. toog di wax. bëri na ci ñenn ñoo xamante ne dama leen di suivre. mais ba leen toppee ba ci biir. Euh, euh, jàpp naa ne pour man waxuñu askan wi xew. wala jàpp nu wax nu wax nu indiwaatuñu nit ñi. ndax ci wàllu sexe rek dañu yóbbu nit ñi. kese. xam ba xam dégg nga baax li mu bëgg. maa la dégg. jaaral jaaral ci digg ba bu ma ko bu ma ko waxoon tey ñu ŋàbb ma waaye comme yaa ko wax. aywa ah yow tamit. dëgg la non gis naa ñoo xamante ni nii waxuma xama ay docteurs yu jeex lañu xama ay amateurs yu jeex lañu xama doonu sëy ba retraité waaw mhm. songu siti mhm. waaw songu siti waaye mais du du ma du dégg sa raa nga dégg ci koo xamante ni nii waaw day day day day day day indiwaat nit ñi mhm. indi nga tem de indiwaat ay rakkam nga xamante ni nii moom dafa nekk ci sëy te sëy ki ci nekk rek ko mënant li dëgg la ah léegi da ngay ñàkk nekk ci say yor plateau yi waaye yow gis koo xamante ni tas na cent soixante sept fois <laughs> tas naa tasa tasa tasa tasa tas ba pare bëgg a yee rii pañe rii pañe rii pañe rin topp mbedd Ndakaar dugg dugg dugg dugg dugg dugg tànk bi moo raw moo raw laalo ba di mel ni biir gu tuuru toog ci internet naan te seen waxtaan lépp lan la ci benn laps de temps la muy sexe ba pare nag luy Arsenal ñu indi ko teg teg ko léegi danoo dem ba xale yi dugal seen bopp nii pour ñoom sëy du lara lu lu lee. Arsenal bi te pourtant billaahi. Caamaas dogguma la yàlla. mais nee nga tas na sa 167 fois. waaw yow dama bàyyi ponkal moo xamante ni ba pare bëgg a yedde. dox naa doxa doxa doxa doxa doxa dox miin nañ ko fu ne lan bu ne miin nañ ko. Caamaas sama yaram nee na ba pare bëgg a taxaw ne ka ka te te li muy waxtaan. ah lii boo ko jëlee lii boo ko jëlee lii boo ko jëlee loo xamante ni boo ansibilaay léegi nag nga jël ko mu ne xale ba dégg ko. jël ko dem yóbbul ko ba këram pompe ko pompe pompe pompe ba mu jëlee fa ponkulum tuberculose wala mu ne fa di sëqat sëqat ngoo xamante ni nii wala mu daw six mois big ba dootul bind yooyu yëpp yee ko indi. waaw <laughs> ah, big ba dootul bind. te ñoom docteur Dieg te te koo jox mu fàggu tag naan docteur Dieg laay gis nga. léegi dafa bari. li ci nekk caama ah, baax na. waaw baax na caa ba nga ne tekk te déglu. rama rama neel kii sama yaram neexul <laughs> mhm. bëgg ne tekk te déglu. ñëwal. te nga arrière kase bi. waaw. 10 minutes parce que fii neex na trop. waaw 10 minutes bàyyi dama soxla lii. bàyyi rek ma jàkkaarloog moom ci 10 minutes. ayca ko defee nga déglu ma. waaw. Mhm. docteur dafa bari te bokk tubaar fa kàll macha allah. dëgg la macha allah. Mhm. gis nga docteur bi dafa mos maq mos siim. ok. Mhm. xam na li xew xam xam sa tey. xam na li xew tubaar fa kàll lu waral docteur docteur day faj. day faj day faj faj du ma ne docteur góor ñi de waaye maay seen docteur mu neex ak mu naqari leen man maay seen docteur allahu akbar xam nga lu tax ma doon seen docteur damay faj jeeg ji jeeg ji di leen faj eh waaye bu ma waxati li waaw allahu akbar di waxtaan ak jeeg ji mm-hmm. di leen delloo si mm-hmm. xam nga da ndax am ngeen ci part de te ma ne la bu mag mm-hmm. te muy dëgg lu waaye di wuyu da koy nuru. da koy nuru absolument. loo doonul taalibeem doo doon sëriñam dëgg la. am na loo xamante ni sii boo ca jaarul doo ko xam. bilaay wax nga dëgg. mënoo taxaw fëgg sama dënn ni fa ma jaar ku fa jaar. tax ban dëgg waxal nga yàlla. fa nga jaar foofa ngay coppati xool fa sa yaay jaar ak fa say mag jaar ak say nit. Mm-hmm. nga jël ko teg ko ci taabal ji toog di. ah kon maa ngi doog a gis docteur de. Mm-hmm. docteur a ngi nii. nga gis ne docteur maa ngi doog a seen docteur <laughs> mais fajal. ba mu neex <laughs> ñëwal wax na ma jox la sa certificat kon fajal ba pare ma jox la certificat bi kon <laughs> jeex na dégg nga bu fekkente ni si ñun dañ cee am part de responsabilité d'accord mais dañuy waxtaan chaque jour ak jeeg ji di delloo si jeeg ji jeeg ji ñu mag dëgg la ak ñun ñi ñu mag dëgg la jeeg ju mag gi laa wax de mm-hmm. ñi nga xam ne mat nañ ñu yaay waaw delloo si nañ leen tubaar la macha allah ba teg leen ci temps dëgg la ba bu ñu tegoo ci balance bi ni lay def mm-hmm. jéeg yi nga xamante ni si ñun ñoo leen magi teg nañ leen ci temps ak suñuy doom mhm. ñu ngi leen di teg ci heure temps mhm. waaye nag danga ni bari na ñoo xam ne dañuy teg ay arsenal waaw mhm. naan defal bii defal bii defal bii defal bi te fekk wër nañ mbedd ndakaaru te muy dëgg nee na tas nañ 177 fois boo duggee ci internet bi boo tàppee docteuru jéeg ji ay góor sax am na góor ñoo xam ne sax ay docteur ay docteur lañ dëgg la gani waaw waaw am na góor ñoo xam ay docteuru jeeg lañu. Mm-hmm. ñooy waaye nag liñ naan seerees mbay dàgga. waaw docteur baa ngi ni eh pire baa ngi. sàngara pure bay ma waay waay bu ma waxati euh, bi jàkkaarloo xale yi di leen teg ci temps di leen naan leen jaar leen fii def leen lii dugg leen fii kii leen ku ci def lii di nga jubóog sa jëkkër waaw jàkkaarloo góor ñi naan leen def leen lii def leen lii ku ci def lii di nga jubóog sa jabar docteur baa ngi nii d'accord ayca allez bu ma la déggee waaw yow daal jéeg gi ngay waxal waxu waxuloo jeget gi. déedéet te Thiamas da wax lu am solo. ak jeeg ju ëngas mooy euh, arsenal bi la arsenal bi la xale bii gis. yaakaar ne bu ene temps yi may ba pare moom la war a def pour sëy bi pompe ak pommade ak lu ne mu wut ko yaakaar ne loolu mooy sëy bi te loolu ñu ngi lu ñu moderniser la mais docteur mi dama ko gis ak ay ceeb al danke mhm. quatre côté goowe eh. digije tàndarma. Mhm. man yooyu laa gisal docteur. yàllaa ma gënal lool loolu laay wax. lool laa ko gisal. Mhm. mais côté boobu nga wax dafa bari léegi ci dëkk bi ba daanaka yow bu fekkente ni jigéen nga bëgg am xaalis seetal fi ñuy jaayee yooyu. Mhm. mën naa la ne bërëb sàngam lañ koy jaaye dëgg la boo fa demee dinañ la ko jaay ba mu doy. Eh pomp ak lu ne maladie la lay indal. te yaakaar naa ni boo enee temps yi may ba pare sa yaay def ci yow àddina ak li ci biiram. jël ay gànjaram jaay jël fond de commerce def ko ci yow. Mm-hmm. ngir nga ene time nga lawaay boo demee ba ca sëy ba bu ko wutal time. ah bu ko bu ko wutal jàngoro. time ba du la bàyyi <laughs> mm-hmm. sëy bi time mooy que ne. Mm-hmm. salaamaaleykum maaleykum salaam sama jëkkër na ànd ak man beru man du fi toog di lijjanti benn goro. oh te pourtant de goro ba moo d'accordoon ci sëy ba ba nga ñëw dugg ci biir. sëy ba la. nga commencé nag ak sunu dëkkuwaay yi xat gi mu xat mhm. nga jël sab goro suus ko gileem sosoo sa njëkke mhm. li sama yaay naan faale njëkki xewi na faale doomi njëkki xewi na mhm. da ngay ruy sa keemaando di dox di naan teg ca dongali ba nga ne ngodd rek di sa jëkkër allahu akbar jarbaate yi ci kër gi ku wax nga ba max dëgg la te naan puus leen ba ma tibaate ko du wand gi ci yéen la jëm loolu lañ fi sëyee te booba en temps nga bërki dem boo njaay dëgg la boo ci kër gi sëy bi na rajax tas kon nañu delloo si waat xel yi xam naa ni lii moom Arsenal docteur ak kii naka la ñu war a doone docteur beneen jàkkaarloo lay doonaat ci yéen incha allah parce que doyalu ma ci parce que da ngeen a sulli beneen tam ci fin wu émission bi mhm. te euh, anytime lañ doon waxtaane mhm. ñaax nit ñi ñu delloo siwaat ci seen xel mhm. moo xam waajur la moo xam xale bi la xale bi ci boppam même bu ñu ko ko naralee na daw cat parce que nag cat mi ngir toj dëkk bi te rendre ñu ci la rama ñu jaaree fa tàggoo. maa ngi nuyu bu baax a baax Marème borom Arsenal ma nga euh, Parcelles Assainies Marème Silla Parcelles Assainies unité 25. ay cuuraayam rek jéggi na dayo Marème Silla maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la kontaane yow kenn du yow ay ca ba pare soxna Mbaye waaw gis nga bët du yan waaye xam na lu xam na lu bopp ak dëgg la xale yi damaa bëgg ñu ñu ñu dal mhm. àddina yemul ci tey déedéet wala yemul ci tey dara xëyul sotti. déedéet nañuy comprendre seeni way mm-hmm. mm-hmm. bari na ci xale yoo xam ne dañ leen di may nàngam. pour mm. ñu xew ñu ne damay ene damay def lii damay def lii bu leen seen yaay woowee ci pour ko ni leen kat lii mënta nekk ndax xam ngeen. waaw yow xam nga man xam naa yàlla xam na. kon nag bu leen ko fi enee nga ne ko carrément damay ene xaalis bi ñu ma may nangam nangam jël xaalis boobu yëpp dem defe ko ene dem defe ko xew sonal sa yaay. sa yaay war a jàkkaarloo sa yaay war a jàkkaarloo ak say goroog say njëkke mm-hmm. sa yaay bu deful. la mu war a def ñun dafa ñàkk jom waaw mm-hmm. te moom xale bu jigéen bi moom yoonam yoonam newu yoonam newu dam bi sam am ay photo ay bu fekkente ni si yaayam nee na moom mënta ñëw mu ne sama yaay damaa toroxal dëgg la na ñu delloo si seen xel nañu delloo si seen xel xam ni temps bi jeex na waaw mais léegi anniversaire mm-hmm. dëgg la daanaka mook any time bi ñoo yem léegi ñoo yem bu ma waxati li anniversaire xale yi dañuy ene laay xale tuuti dañ leen di defal ene waxal ca naa koo xamante ne xale bu ndaw la mi ngi nii toog jàkkaarloog man du ma tudd turam mm-hmm. anniversaire am bi passé juróomi yére la ma sas. dëgg la. waaye bu ma waxati lii. Ah, juróomi yére ne dañuy fotowu dañuy kii juróomi yére la sama morom yi sol. kooku bu ñu koy mariage su ma jëm. xam yàlla na ma fekk bitim réew mbaa mu fekk ko bitim réew moom sóoraale vingt yére rek. <laughs> la la sol juróom fexe ko kon kon mu xam ne du ngoy faal rek mu ñaar fukk ma ne ko kon mu xam ne du ngoy faal de. <laughs> dëgg la de <laughs> soxna Mbayang bi laa émission bi waroon non non non gaspillage yi dafa bari. dëgg la dafa bari yaay gis jeeg boo xamante ni dem na ba ñëw yor sa tam ci biir kër gi di anniversaire. waaw ay doomam di ko anniversaire jënd gâteau sol ay yére invité ay nitam. def quest sa qui ay tubaab la ñu war a lan. léegi de boobu xew yeggaleel tàggoo bi. léegi de boobu la ñuy def di anniversaire. mère yu màgget yeeg paa yeeg ñëpp ñu leen di anniversaire ku ci xamuloon sa date sax dem nga ba lijjanti ko. gëstu ji ko mère mhm. ko pour def anniversaire. Mm-hmm. Ah, waaye yàlla na jàmm yàgg. borom sikki mi weex taal di anniversaire. <laughs> di anniversaire surprise yi di ñëw. Mm-hmm. surprise mën nga ko defal sa goro mën nga ko defal sa yaay mën nga ko defal sa papa waaye sans pour nga koy filmer. dëgg tey la anniversaire dugg na fi génn faa. dëgg la nañu bàyyi caaxaan waaye. ah de man anniversaire sa anniversaire tey la. waaw parfum bu neex si jàdd gu dégg jàmm gu nooy nepp. Mm-hmm. ma may la ko sa anniversaire ma may la ko wala nga jël xaalis bu bari daal di ñëw jox ko ko ni ko sa anniversaire ndax papa moom boo ko joxee xaalis ko ne yooyu lañ ah, yee moo ko gënoon sax parfum ba lu mu seer seer ay <laughs> ca bokk euh, xam naa ni temps bi jeex na bu baax a baax may dem ba euh, fële rond-point case ba itam di nuyu waa Bilbao boutique la macha allah dama faa dugg orné sama kër ba mu dégg jàmm kon képp koo xamante ni bëgg nga fa dara rek Bilbao boutique maa ngi nuyu Mansour bu baax a baax sama frère boobule borom Bilbao boutique dégg jàmm tabarkalla amul looy soxla ci biir kër te amul ca Mansour Mansour kontaan naa ci yow bu baax a baax tey jii yi noonu laa leen di kaajee par benn parce que dañ ma teral ci semaine bi <laughs> Mansour jëlal yaa moom loolu lan ngay tàggoo ah, waaw ok soxna Mbaye dañuy santat yàlla bu baax waaw julli ci Seydina Mouhamed di ñaan yàlla sunu daje bi yàlla bu mu doon sunu mujjug daje amiin amiin yaa rabbal alamin di amat mbégte ak contentement jàkkaarloog moom ndeysaan <laughs> eh, soo gisee ma laaj ko loolu leen rek laa soxla woon mhm. la mu wax mooy ma ci intéressé mooy mais fexe naa ba wax ak samay maas mhm. Mm-hmm. jëli ko fi ñu nga xamante ni ñooñu jiitu woon démb pour bër koo dajal loolu lépp joxaat ko askan bi mm-hmm. kon li ngay def dara day fekk nga maîtriser ko wala nga mën ko mm-hmm. Sénégal rek ngay léegi gis kuy koo xamante ni nii dala naan mën naa faj bopp faj biir faj tànk faj ay yeer lépp dëgg la te boo ko xoolee ba ci biir tubéy ju ko sax mënu koo faj dëgg la te loolu lépp dafa bëri ci réew mi wallaahi euh, tey nga ñëwaat ci wàllu cat kenn catawul kenn ñun rek ñoo catu suñu bopp dëgg la kenn catawul kenn ndax kenn amul jot di catu kenn dëgg la ku ci nekk xoolal sa bopp yaa catu sa bopp ndax da leen leer na yow lii. Mm-hmm. famille bi nga bokk bëggunu lii. seen mbir aadu bokkul ci lii. Mm-hmm. yow nga fës ca nag génn. loo mu yàq loolu laal bu yàq bis bu yàlla sàkk di jël doo jóge ci ndigul yu métti bopp bi métti tànk yu métti. Mm-hmm. kon taxawal nga xoolaatal sa bopp. xoolaat sa bopp amoon ci bët yoo xam ne yaa ko wax léegi léegi lu nu xool mu yàqu. amoon ci làmmiñ yoo xam ne lu nu tudd nu yàqu. yow sax nga laaj matul ni sa galaaj matu ni mm-hmm. boo boo sangoo tey balaa ngaa sangoot yàllaa xam bu nee sara xel eh, eh, benn eh, mbuusu soow bu fukki dërëm ngay joxe ak benn sondeel ak ñaari bi ba nga dënju biskit te nan saraxe naa te nan saraxe naa te loolu bokkul ak ak ak ak cat dara mm-hmm. na sunu rakk yi sunu mag yi gën a def attention dëgg la xam ko bokkal ñun kese fi dafa am ñeneen mm-hmm. ko bokkal ñun waruñoo wàll jëm ci ñoom ñoom waruñoo wàll jëm ci ñoom ku ci nekk war nga dund ñun nag lu ñoo nekk ñoo dundee noo xamante ne nii. Mhm. lu nu tëgg rax ca përëm. dëgg la. bu ñu demee ba nga gis góor gu jël jabaram mu am ba diis mu ko filmer di ko photo di ko dugal statut man boobu laa xam ne. wallaahi azim liir ya nekk ca lali hôpital yi ñu photo leen statut dugal. Mhm. tiktok nga téye nii naan ëmb ba muy ci ëmb ba muy boobu ci koo xamante ni nii xamoo ci ban moment. ëmb ca ba muy. ca ba muy moom ndaw si ne yegg taxaw. Mm-hmm. barke allah ji malik nga ànd ceeg sa borom kër nga ànd ceeg sa borom kër laa la de wax ma ànd ceeg yow de ànd ceeg sa borom kër mu yambara yambara goo xamante ni film ak lépp génn ñu xëy suba xale ba mel ne neen mm-hmm. est-ce que am na ci barke Seydi Aboubacar moo tax malformation yi bari mm-hmm. gis nga nit ki da sa sama papa na ma baatu sàcc waaw ku ci nekk mën nga ca jàngat baatu sàcc moom foo ko def ñu la bëgg a déet mi ne ma déedéet caaru nit ku ci nekk war ngaa mën a sàcc sa bopp mm-hmm. Mm-hmm. sàcc sa bopp mooy ça veut di ko jëlee sama ndaay sama baay ba sama maam mm-hmm. amul lenn loo xamante ni ñu ko ci doxale moom mii wax dëgg yàlla ndeysaan xam naa ni neexul ba neexul waaye docteur baa ngi nii mhm. nangu nga waaw li tax ma lenn kasa la mooy ndax moo développé mhm. waaw ndax bu bu mu ñëwoon ci ay pompe mhm. am na ci koo xamante ni netti naa la xam nga dimanche man du ma génn waaw dimanche la ñëw mu yenu moom daal dafa mel na la woon ci marché ba lépp da ko yor ay pompe ak yu kenn xamul ay tàngal lu ne mu ñëw ko man daal maa yeewu fekk ko ci salle bi fekk mu um naan sama jabar na ko bii mooy lii mën na ko buubat buubat barki démb gi nii di dama 11h laa yow jugal jël kër jël <laughs> mu bu bagage bu jugal jugal barki démb 11h laa jug jugal ci loo xamante ne nii. waaw da ngay fàttali ne sax da ngaa war a xëy. barki la jëmale. ah barki démb 11 laa 11h laa <laughs> maa ngi nii 11h laa xëy te 8 laa war a xëy damaa ne la ba 11h jël lépp génn kër gi. noonu mu mu mu ne damay euh, damay kaaf. waaw billahi ma dëggal ko ba mu wàcceeg mbuusam génn kër gi. ndax la. waaye kama yor da wérul ma yàlla baal te jëkkal ma loo ko wax mu ànd moom ndeysaan maa ngi koy nuyu yaayu xale yi. ko boo koy a def benn moom day day jéem a xool ni mu yokkee ma si waa. mi ngi ci mi ngi maa ngi moom ñu ngi ci fitna yu goo xamante ni guddi yu toll. ndax la nee naa ko boo demee ba gisatoo ma ci néeg bi damay seen waxuma sax saal bi mu ngi may seen ca balcon ba bu mu la bett ndax amatu loo xam ne man dama ca xaju ndax xale bu ndaw laa kenn du ma laaj. mbaadu dañ laa yónni la. yaa def jëf ko ñaanal yàlla yàlla ko yooyu yëpp xeetu jàmm rek la moom moom moom suma xarit la ndeysaan barki Serigne Babacar Sadou sama mais sama xarit la ndeysaan loolu rek moo am solo problème moo ci gën mhm. euh, sama sama sama sama sama mbaax moo ci gën mhm. te di nit koo xamante ni nii musuma gàntal benn yoon ndeysaan kon yàlla na ko yàlla defal jàmm mu yaay xale yàlla na ko yàlla defal jàmm ci amiin yaa rabbal aalamiin dinaa ko yow loo loo doom joo am sunu borom teg ci loxo ndax yaa ko yaa ko fi mel macha allah barki àllaa jimali si yombul de laa ilaha illallah te te te li ne ci àll bi moo ëpp téeméer léeg ñu ñibbi si ay poste vide barke Serigne Babacar Sy jour ba nu banqué korog la ñu gën a lekk lu baax barke allah jimalik kon yàlla na ko yàlla moo tax soxla wunu leneen feneen bokk yi xëy di yor mbuus dëgg la noonu la ñu téyel kooku du jeget waay waay waay ñun xam na ne fan dut sunu baaraam fala kooku du jeget te doomi bur la du jege du jege jeeg la kon Fatou Thiam kontaan nañu ci moom bu baax a baax ñu ngi koy nuyu di nuyu waa Grand Yoff yëpp mhm. yow Thiamas ku la téyewul ku ne mhm. dina ma jaaxal baax nga bari nga jàmm te loo for yëtu sa njaboot te taxawaalu woo benn yoon loolu ma jàmm solo <laughs> non non non non amoo benn problème macha allah ndax gëm naa ni nii ngay def ba ñuy ree loolu ki sa njaboot nga ko jëkke kon donc euh, dañ lay ñaanal yàlla man moom sama choix bopp nga dama lay ñaanal yàlla yal na yàlla guddal sa fan ndax gis naa ni ma téye su ma nee jógal rek nga jóg kuréel ma ma bàyyi la nga tàggoo amiin signalé ne temps waaw di la sant bu baax mm-hmm. caam sama xarit sama mag sama mag sama xarit bu ma dëggee 2STV yàlla ak yow la dëgg la du ma noppee di ko wax mm-hmm. ku baax la du ma noppi mm-hmm. di ko wax bu ma duggee 2STV bi daanaka ba amoon fa ñaari at ak lu topp yàlla da nga baax rek gudd fan rek laa koy ñaanal ak wér rek ci kàttanu yàlla mbaaxam incha allah sant naa la bu baax ma dem jéen sama incha maa ngi lay sant bu baax di nuyu di nuyu Cissé Ngaari Njar meew tëmbal galaas ko bi ndax lu ma laax feddalee ko moom moom waaw moo jàppale waaw xeer watee sàkke da cay daru man ni moori tëmbal galaas nuyu naa la bu baax a baax a baax jeex na tàkk waaw du nuyu Fatou Diagne du nuyu ñëpp macha allah mm, macha allah matu mee ngi nuyu naa la jërëjëf maa dem ba may dóor jërëjëf ngay tee nga maa wàcce ah, yow xam nga ne moom bu jaaree ci si si sa ngaar tëmbal galas xaw ma waaw xobi naa la xaw ma xobi lem tarkala macha allah maa ngi koy nuyu bu baax a baax si sa yi waaye nag eh, kenn du ndéygee sàmb yaayu mbaas. maram Ndiaye ndey demba jéeni beeñ umpaañ ca beeñ amun ak ca beeñ njëre njeenga maa faal ak njañ maa faal ak maa faal mi goron beer naa ko dagg foofu ndax cat dafa gaaw te xale yi dañoo gaaw léegi la macha allah moom ku mu nopp mu nangu waaw mag ak ndaw tabaarkàlla maa ngi koy nuyu bu baax di ko kontaane Mansour Sunugal 24 maa ngi lay nuyu bu baax di la kontaane bu baax a baax di la jaajëfal jaajëfal ki nga xamante ni mooy Mansour borom Bilbao ni ma ko waxee maa ngi kontaan ci moom bu baax a baax waaye bu baax a baax euh, ki nga xamante ni mooy Modou Ndiaye ma nga foofu ca diwaanu Espagne kor asubal maa ngi koy nuyu di ko kontaane bu baax a baax le frère naa ci yow bëgg naa ci képp koo nekkal kon astu maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar le moo du Ndiaye itam naka noonu ak famille ba ca Sébi yëpp ñoom say Ndiaye mère ummi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen kontaane kenn du fàtte Makhtar Ka ma nga foofu ca diwaanu itali ak France maa ngi koy nuyu di ko kontaane bu baax a baax sama invité yii maa ñoom démb la tey soog a ñëw yàlla nañu yàlla lafal cat ba fi ñu bëgg a yegg ñu yegg fa macha allah ñu may gunge lañ ñu may jàppale lañ rek ku ne xam na ne émission bi la ma ca mën bareetul hmm. ku ma ci ne nga jóg kon hmm. mention spéciale à vous technique bi ngaay ma nga fa ak mbara maa ngi leen di kontaane bu baax a baax a baax hmm. di leen ñaanal jàmm di ñaanal jàmm maire Awa Diallo. Mhm. yaayu mbara itam ni ma ko waxee Kër Massar sànq maa ngi koy kontaane bu baax a baax jox leen rendez-vous incha allah madame Diaby Rosso mi ngi may woo rek ci portable bi maa ngi koy nuyu bu baax di ko jaajëfal moom tamit kóllëre gu yàgg la ba mu tuddee ma doom joo xamante ni tey jii ñaan naa yàlla mu anytime waaye nag moom ma nga Rosso ñoom anytime Mauritanie la ñuy def wala bu kayit yi te loolu dafay simple yàlla na ko yàlla mottali sama turandoo boobu mbayeng rendez-vous incha allahu taala ak beneen yeneen i gan beneen tomb waxtaan ci biir la 2STV di leen bàyyi ngeen woyale seen seetaan ak programme bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu fi amaanillah jaa ngeen jëf